Macky Sall ci bopp Sénégal waral tey yëglekaay bi nag dellu siwaat di ñu xamalekk ana kan mooy Jomaay Fay ni mooy président bi gën a néew ay at ci njiitu réew yi nga xam ne rek jot nañoo jaar ci réew Sénégal di ab opposant bu ñu jëkk a tabb ci premier tour doon it njiitu réew mi nga xam ne rek moo fi njëkk am ñaari soxna di koo xam ne rek ba nii mu nekkee njiitu réew rek mësta am mandat électif wala ay responsabilité au sein de l'exécutif lu mu ci mënti doon Sud Quotidien daal dellu siwaat ci njeexitalu mandat président Macky Sall mi nga xam ne rek tey jii ki ko war a wuuti di Bassirou Jomaay Fay nag fas yéene naa doxal ngir jiite réew Sénégal moom Bassirou Diomaye Faye war amal prestation de serment tey jii ci suba buñ ca noppee mu amal passation de pouvoir ci teewaayu ay délégation officielle yu bàyyee ko ci CEDEAO le quotidien yëglekaay dellu siwaat ci prestation de serment bu njiitu Sénégal bu yees bi nag jamono ji nag lépp noppi na li ñuy xaar daal bokk na ci urgence yi nga xam ne rek moo fi xaar njiitu réew mi yees bi nag fi mu toll nii chef d'état yi nag ña ngay défilé ci biir Ndakaaru l'observateur dippee ko mardi de grâce pour Bassirou Diomaye Faye présidentielle yéenekaay bi dellu siwaat ci Pastef ak fa mu jaar jafe-jafe yi nga xam ne rek jot na koo dund ak nguurug Macky Sall ba tey jii ñuy xalaat nag seenug dugg ca pale ba ngir am poste premier ministre les échos yëglekaay dellu siwaat ci prestation de serment bu njiitu réew bu yees ak passation de pouvoir bi nga xam ne rek war naa dox ci diggante Bassirou Diomaye jaxaar fay ak kii di président Macky Sall Vox Populi ne Sénégal gu yees lañu fi nar a gis ginnaaw prestation de serment fi mu toll nii nag moom Bassirou Diomaye Faye nag mi ngi ci pression ginnaaw urgence yi nga xam ne rek ñu ngi koy xaar dundug cher gi ñàkk xëyum ndaw ñi réconciliation nationale nu ñu war a def rek ba démocratie bi ñu daal koy dooleel organisation contrôle yi nga xam ne rek moo jëm ci wàllu politique étrangère lañ fa yëglekaay addu jëmale waat prestation de serment boobeek nañ ko war a doxalee yéenekaay bi ne ñaari membre yu bokk ci conseil constitutionnel ñooy jëli ju Bassirou Diomaye Faye nag buñ ca noppee président bu conseil constitutionnel daal ubbi waxtaan wi nag ci constitutionnel ginnaaw gi nag ci la Bassirou Diomaye Faye di dem ca palais présidentiel nag ngir weccoo lengey ak président Macky Sall peuple fetlu ko ne moom kay président Macky Sall lépp luy ab dossier rek tey jii dina ko jébbal kii di Bassirou Diomaye Faye lu jëm ci poste premier ministre bi nag gàtt-gàtt àllarba ji ñu jëm nag daañu ci xam dara bés bi le jour dellu soit tey jii ak président Macky mi ñu nar a woon ginnaaw yemook ñaari fan ci weeru avril yéenekaay bi daal di amal ab bu metti bi doxoon ci digganteem ak Wade ak Idrissa Seck naka noonu Karim Meïssa Wade yéenekaay bi nag dellu siwaat ci grande réalisation yi nga xam ne rek amal na ko rawatina nag dérive yi nga xam ne rek def na ko ci réew Sénégal bilan socio-économique bu mitigé nag loole léegi lekaay bi xamle souveraineté alimentaire bu ñu reporté démocratie ak liberté mu daal di koy salfaañe ci nguuram Walf Quotidien dellu siwaat nag ci décoration ak nomination yi nga xam ne rek doon na ko amal moom président Macky Sall ci njeexitalu mandaawam mu di ay décret yoo xam ne rek jur yu bëree libération moom Kabili Touré nag ma ngay ñaawlu yooyee nomination Abdou Fati nekkoon fi secrétaire général bu SELS nag ne fi mu toll nii nag lim bu takku ci ay enseignant nag daat nañ leen di recruter nag ci anam boo xam ne rek dara jaarul ci yoon bu Bousso nag moom ma ngay yuuxu scandale addu jëmale ci beneen scandale boo xam ne rek am na ci réew mi mu di douane bu Sénégal nag daal dinañuy teg loxo nag lu ëpp quatre-vingt-dix kilogrammes bu cocaïne loolee nag bu ñu ko xaymaa ci suñuy xaalis war naa toll ci juróom-ñaari milliards yëf yi nag douane bu Sénégal mi ko Touba ak Koupentoum addu jëmale ci libération ak mbirum Seydina Mouhamed Diop juróom benn policier jamono ji nag waa dig teg nañu leen loxo ñoom ñooñee nag ña nga nekkoon ca service ca commissariat bu Pikine lañ leen di tuumal nag bokk na ci dañoo laalek faatug Mouhamed Diop yéenekaay bi ne ginnaaw bi ñu ko tegee loxo ñoom way takk der yi nag dañoo yóbbu Mouhamed Diop ba ca Technopole daal di koy dóor dóor yu metti ba mu jaare fa ñàkk bakkanam jeexalee kook ñeneen ñoo xam ne rek ñàkk nañ seen bakkan ci ab accident boo am ci VDN 3 bi nag mu di ab collision boo xam ne rek dox na